Euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ah di leen wax aussi ne dal leen ak jàmm yàlla indi leen fi ci jàmm ngeen am fi ndam ci jàmm ñibbi ci jàmm euh, loolu maa ngi koy ñaan ci barke suma turandoo euh, di ko yéene asek ndar gu ndaw dina damay ubbi nag après xëj jot ci amaat tuuti luma ci sanni comme cadeau mais damay wax touti rek ci ubbi bi ne fi ngeen dal muy ASC cosaan bokk na ci ASC yi gëna a mag ci commune Kahone bi ci tegu moy man mi di wax ak yeen pendant 30 ans ma nek président ASC bi bokk dans le mouvement comme yeen amul dara ci reur ba dom doom di ci football fii ngeen ñu fekk ki doonoon maire bi maireu équipe bi yàlla daf ko fi jële durant li ma doon président ñoo bokkoon ndey ak baay mooy yaayu xale yi kon dal ngeen fi ngeen war a dal ndax kii ba bi mu fiy jóge mooy ki sanc kër gii football rek la xam football rek la xamoon ay doomam di football ci équipe bi kon mu doon mag yoo xam ne ba bi fiy lepp loo ko wax ci nawetaan xam na ko alalam da ci doon dem leppam da ci doon dem kon ça c'était pour camper rek won leen ne fi ngeen dugg si nii suñ leen ne siège ba ngeen demoon fa lañ leen recevoir keneen dina leen wax ñooñu lañ lañu jëriñ nawetaan lan lañu tekki aussi ci nawetaan en commençant ci man mii di wax ba tey ma nekk dans le football civil doon ci président club Kahone FC bi ngeen di dégg man may président euh, du ma monopoliser la parole mais il fallait que je lolo pour que au moins ce fi ne dem ñun équipe Nous fi muy ndar gu Ndaw fagn dem fa lañ wara dem ñañu accueillir ñoño ñu wara accueillir kon vraiment le souhait euh rek ñun Nous, après ñu talal Nous ñaan euh may ñu ndam ndax ndamu euh, ku mënti doon tay ci phase nationale ndamu Sénégal la mais yéen ñi dal ci suñ koñ suñu sañoon tay ndam li moom di ngeen ko yóbbu ñu gunge leen ba fa ngeen ye ba fa ngeen dëkk donc c'est ce qu'on souhaite loolu la ñaan vraiment di leen dalal jàmm euh, di joxe kàddu gi ba ci kanam alim min shari sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum ñu ngi len di nuyu di ziar ñëpp di balu ñëpp ak di len xamal ni rek ASEC de Ndargu Ndaw moo ñëw fii tey bala ñu tàmbali nak suñu kàddu dañuy dañ leen di jébal ay kàddu yu njéggal di jéggalu parce que dañu ne gan ñetti fan mënu mënuñu jugee tëngéej ñëw ba rot ci fi am fi 3 jours di doga a ñëw di nuyo ci lool du yoon rafetlu wuñ ko ñun suñu walu bop ñun ñiko def kon nak lool dañ leen ci jéggalu bu baaxa baaxa baax mais dafa am lu ko waral moy defe na mercredi lañu fi ñëw mercredi bi ñuy yegg ci fi danaka 23 trois heures jot jeudi bi ñu xëyee. mise en place yi lañ doon def installé suñuy bagages yeeg installé jour yeeg affaire yooyu le vendredi dañu waroon a jouer loolu moo waral yeexaayu suñu teew fii tey mais li doon yoon mooy bu ñu ne cëpp teg suñuy saag rek dañoo war a dem seeti suñuy njaatige ndax alxuraan dafa wax ni waatil buyuuta min abwaabiha booy dugg ci néeg wala ci kër da nga jaar ca buntu ba te defe naa fii ñu ñëw quartier bii ñu ñëw am na imam am na ay notable am na chef de quartier ci ñooñu la ñu waroon a jaar jébbal leen suñu suñu suñu su maanaam suñu surga ñoom ñu ñu defal ñu ñaan te nangu ñoo ñaatige woo waaye nag yeexaay bi li ko indi lii moo ko waral lii ma leen expliqué sànq moo ko waral ñu ñëw nag yàlla dimbali ñu comme si sport la ñuy yëngu ci nawetaan la ñuy yëngu ñu daje ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu football bi ci gox bi fii mu yéen ñi toog ngeen dalal ñu kon ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñuy kàddu mbégte ak dalal bu rafet bi ngeen ñu dalal di ko teg ci seen loxo ngeen jëbalul ñu ko imam ndax mooy bunt bi fii gannaaw loolu nag ASEC de Ndargu Ndaw ñoo ñëw seet si leen ma ànd ak les dirigeants quelque quelque waroon na ëpp sax mais ñenn ñi peut-être ñu ngi ci yitte yi président aussi dafa am lu ko xaw a tënk tuuti mais incha allah am naa yaakaar ni demee dina ñëw moo tax kàddu yi ñu fi wax ci ci moom moo tax ñu koy wax ci làmmiñam lañ koy waxee lu ci jub nag moom la mais lu ci dëng rek ci ñun ndaw yi ñu yi mu yabal la ñu ànd ak suñu mag muy Akran Ndiaye nga xam ne ñoom ñii ñoo géré télé bi nga xam le président directeur général bi nga xam ne mooy suñu président ASC nyu ko tijji ñoom ñu nekk fa di liggéey mu ànd ko ak suñu grand frère Alpha 6 ñoom ñoo géré loolu ak seen ñi nga xam ne ñoom la ñu leen di jàppale ci liggéey bi ci walu ASC e bi ñu ngi and ak suñu mag Zo mom ancien capitaine du équipe bi la ànd son vice président commission sportive monsieur Ahmed Fall ànd président comité d'organisation, bi ki ko fi représenter mi ngi ni tok muy sor saw ak ñi mu àndal ci liggéey bi ki il fait partie des adjoints d'entraîneur, Papa Diop Diagne ñu gën ko xam sur le nom de Gaynde bi football Gaynde lañ ko tuddee won ak ñom babu nar ak Maysa Samb ñom ñëpp ci dirigeant yi lañ Bok. suñu mag ji nga xam ne ci commission sportive la bokk Ibrahima Khalil Dia ñu koy wax Gabaar ak Mouhamed Lay nga xam ne moom ci wàllu sport mën nañu wax ñun ñun ñëpp moo ñu ci feete kaw parce que ba mu ci yëngu ñun yëngutuwuñ ci ak ñeneen ñi nga xam ne ku lim rek dangay am ñoo doo fàtte mais am ñoo bàyyi kon nag ñi ma lim ak ma limul ñëpp ne leen euh, suñu mag Alpha Cissé yóbbaale géew dañoo xam ne lépp kàddu yi bu gàtt bu bu bu bu bu jubadee ci man la waaw gannaaw loolu dañ ne woon nañ ñëw seet si leen parce que booy dem ci dëkk sox nga soxla nga fa njaatige ñu ñëw nag tàllal leen suñuy loxo nekk seeni surga ngeen rek suñuy njaatige fu ngeen ñu awloo foofu la ñuy aw lool la ñu ci yéen te gis nañ ko ci yéen parce que fii ñu nekk nii ci kawoon su ngeen fi su ngeen ñu fi xatalee duñ fi ne ku nekk xam na ni jour récupération la bëgg ku nekk aussi xam na ni dirigeant ay jouram nekk dans de bonnes conditions la bëgg su booy yi toogoon neex leen ñu taxaw fële ci ginnaaw tali bi di sànni ay xeer guddi ba ñëwee ba léegi yéen ak ñu may jàmm gis ñu fa sax càmbal càmbal kon nag ñu ngi di sant ci loolu di leen bu baax xam ngeen am ñu fi ñëw dal te ñëwuñu yéglu ñu ngi siy jégalu bu baax a baax baax pour bañ a guddal kàddu yi daal loolu moo doon suñu tànk moo ñu indi fii tey di leen tallalaat encore suñuy loxo di sukkaat seen kanam di leen di leen surgawoo nge di leen ñaan ngeen njaatigewoo ñu loolu rek lañ leen di ñaan bi ñu ñëw nag le président Assane Sarr dafa amoon initiative comme quoi que ñu ñëwee ba yegg si bu ñëwee nuyonteeg yéen moo ko waroon a def mais ñun dañu am lu ñu baaxoo ñun si suñu ASC mooy dañu ko toppante rek boo ñëwee da ngay gis ku nekk la mu war a nekk ca la nekk. bi ñu ñëw mu yow mu am initiative ne comme ñun ay jullit bu ñu nekkee dañuy wóolante mbooloo bu ñu dañuy wóolante yéen a may jiitu dama buggoon benn geste boo xam ne rek geste maanaam dañ koy tuddee geste teraanga wala sëriñ sax bokk. ngeen yóbbaaleel ko suñu moo suñu naatangoo yooyu nekk foofu nga xam ne ASC lañ comme ñun te ëllëg. yàlla mën naa def ngeen ñëw phase nationale war a ñëw dakaar wala ngeen war a ñëw si Rufisque bu boobaa même ñun bu buñ ci bokkee buñ ci bokkul war nañ leen a mën a dalal kon nag boo bëggee lu baax ñu defal la ko da nga koy da nga cay jiitu da koy leble ndax suñu wasila yi dañ ko daan wax ci nit ñu baax ñi dégg naa kenn muy wax ne soo bëggee alal boo ko bëggee bari le da koy joxe soo bëggee cër bëgg koo bari le da koy joxe daraja boo ko bëggee lu ci bari da nga koy joxe kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen euh, euh, yaatal bi ngeen ñu yaatal ci seen gox bi lii nag moo ne woon nañ ko indaale bu ñu ñëwee ñu teg ko ci ci loxo président bi moo xam ne xeeb na ko lool nag voyage moo xaw a bette parce que dañu doon douté ba dernier moment ndax dañuy dem Kaffrine wala dañuy resté à yàlla dogal mujjee dogal ni fii la ñu resté donc mu ne bu ñëwee nañ leen ko indaaleel teg ko ci sa loxo mu nekk sërite bi nga xam ne ASEC da Ndargu Ndaw moo ko indaaleel ASC ASC cosaan ASC cosaan bu bu kawoon maillot yi ngeen gis aussi suñuy suñu suñu mën naa wax ni suñu biir koñ lañ koy liggéeyee ñun ki koy liggéey mi ngi bokk si ñun moo jiite mooy mooy directeur général télé bi mooy directeur télé bi moo jiite waa télé bi moo koy liggéey ci biir këram donc ñun lépp lu ngeen gis ñu sol ko comme équipement moom moo koy liggéey suñu biir koñ lañ koy liggéeyee président commandé woon ko ne ko nag na nga ci defar bu baax bu rafet boo xam ne comme ñun yi ñuy sol ñu yóbbaale ko jox ko ñooñu sëriñ affaire baa ngi nii

waaw euh, man moom defe naa émotion bee may jàpp euh, ba nga xam ne euh, xëj na contentement bi dafa ëpp ci man parce que dafa am léegi lu ma wax loo xam ne da ngeen ñëw firndeel ko mooy defal sportif loolu sportif ni muy nangoo loolu ak ni mu yéggee ci xolam

Euh, dafa am lu muy symboliser moy fi ngeen yek si ñii ba defal len li ñaar ñi tok ñooy coach ci équipe bi defe naa am ci lu mu leen di xëcc amna ci lu mu leen war a pour que tay yeen ngeen doon royukaay j'espère bien que lolu ñom ah dégg nañ ko ndax ñu may dégg <laughs> gis nañ li li nak ñun dañuy ñaan wax dëgg nag lépp lu ngeen mën ren nag yal ngeen ko mën déwén li leen fi tax a ñëw yal na ko yàlla def mooy gagné phase yi ñun de suñu mébét la wax dëgg ndax euh, wax na ko léegi euh, c'est pas tard sax ci kaw euh, bi ngeen ñëwee ngeen yéex a ñëw ci ñun déedéet ñun sportif xam nañ ne nu mbir mi tëddee rek jota ko mayewut man xam naa ci dara kon dañuy jàpp ne rek tey la bés bi waroon doon leneen lu ci des nag ñun dirigeant lañ et je pense que am na loo xam ne mën mën nañ ko waxante entre dirigeant ah loo xam ne ñun entre kilifa voilà loo xam ne wax dëgg danaa ca am taxawaay am ci gis-gis ba nga xam ne daal jàpp naa ne luy seen bëgg-bëgg su jaaree ci man yàlla mën na ko antu ci fànn yu ngeen ko bëggee nag ñu defe ko voilà donc loolu moom euh, voilà voilà loolu moom je le dis en tant que dirigeant en tant que responsable parce que wax na dëgg quartier bi kawoon am na lu muy symboliser ku xam woon xam ne woon am na lu muy symboliser euh, suñu ko jot bi maay dinañ nuy ji ay mag dem ci ay mag waxtaan ak ñoom uti fa ñaan kooku moom je pense que vraiment dinañ ko def su neexee yàlla